asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk yi ñuy topp ci chaîne bi muy Sëriñ Djily TV ñu ngi leen di nuyu di ziyaara ku ci nekk sa tur ak sasant sant di leen baal leen ko baal di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daarayni mbokk yi tey dañ leen di indil a ah, gént googu xam ne leen na ci arab yi nga xam ne dañuy faral di jaxasoo ak ñoom ak di dëkk ñoom te bari lu muy tegtale ci gént rawatina yi nga xam ne ay rab lañ di ko faral di ko wala ay war di ko faral di ko dikke ci gént wala ay def-def di faral di ko wane ci gént wala ay yàq-yàq yu ñëw sax di ko faral wana ko wane ci gént wala ak wéradi rab yooyu nag li ñuy wax si da caa bokk ci lu a bari ci li muy tegtale si ndax nag mbokk yi xam ngeen ne moom lu dëkk ak doomu aadama la te léeg-léeg nga gis ko ci si biir nekk sax wala sa room wala say garab loolu nag ñaare bu ko fekkee nit ki da ko gént am na lu muy junju li ci gën a bari dana tegtale rab ndax xamoon nga ne rab mooy jinne yi nga xam ne dafa jaxasoog doomu aadama moo tax lenn buy bu lay feeñu mën nañ mbubboo ci rab yi nga xam ne ñoo jaxasoog yow dëkkaaleeg yow ba noppi muy rab yoo xam ne yow sa jëmmi bopp doo leen taamu ci ñaare boole leen gisee ci lu nelaw danga leen di rey wala dang leen di dàq moo taxit bu ñu buñ lay dikk ci nelaw yu mel noonu dañ lay dikkee bu fekkee si ndax bu jigéen nga gént moo xam sa kër nga ko gis moo xam sab lal nga ko gis yooyu yëpp day tegtale rab wu ànd ak yow day tegtale ay àndandoo bu fekkoon ne si ndax bu góor la ñu gën koo xame ci bërbëtóor moom it day tegtale ku yel rab wala rab bu wu am doole bu fekkee danga ko gént mu nekk ci biir yére loolu dana tekki rab wala yàqal dana tekkit àndandoo boo xam ne dalay yàqal loolu nag ci bàyyi sa xel bu baax a baax nga am ci takk-takk ne bu fekkee koo xam ne ñaare dañ ko jox saafara mu jëm ci wàllu luy faj rab wala luy dindi gàllankoor wala xeet yi demee noonu wala téere mu takk ko wala cuuraay yu mel noonu ñaare boo ko jëfandikoo boo tëddee guddi faaw ñu misaal la bu fekkee rab la nga gént gis ci ndax mu wan la ginnaaw di dem wala nga gént ray ko wala nga gént sax gis leen ñu faatu nii loolu dañay xamal na garab gi nga jëfandikoo lu baax la mi ngi leen di neewal doole mi ngi leen di dàq moo xam saafara la moo xam gàllaaj goo takk la moo xam leneen ak leneen la ba tey bu fekkoon na koy ñaanal la yow mi kuy yëngatu ci wàllu kurus moo xam riyaada nga ko defal wala kurus di ko ñaanal gàllankooram yi teggiku ba tey bu fekkee danga nga gént lu mel noonu ci moom gis ay bërbatóor yu dee maanaam gis ay sindax yu dee wala nga gis ay sindax yuy wan ginnaaw di dem loolu gàllankoor la bu koy dëddu wala ay jafe-jafe yu jeex ci moom loolu daana tegtale ñaari ijaaba ci koo xam ne dañ koy ñaanal ci wàllu ay jafe-jafe yu nekk ci moom ba tey bu fekkoon ne koo xam ne day saxaar ci wàllu sey moo xam ko góor ki la moo xam ko jigéen ki la bu fekkee da ngaa gént gis si ndax loolu bu dee ab sëy la bàyyil moo xam ko góor ki wala nga gis bër ñaare ay borom àndandoo dana ko junj dana ko wane amaa nag bu fekkee nit ki dafa gént gis lu mel ni euh, si ndax ci ak guy loolu ay tuuram lañ koy wan loolu ay tuur la loolu day day day tegtale moom ay boromi tuur la xam nga tuur yi am na ñoo xam ne seeni tuur jaan lay doon am na ñoo xam ne fi ne seeni tuur euh, mbët lay doon fi am na ñoo xam ne seeni tuur maana euh, lëg lay doon a nga xam ne ñaara ñu lekkee lëg sax da ngay gis ñu am jafe-jafe lapin am na ñoo xam ne seeni tuur si ndax la lay doon nga xam ne ñaara buñ rayee si ndax da ngay gis ay jafe-jafe am na ñoo xam ne seeni tuur alwasaqu lay doon alwasaxu lay doon alwasaxu mooy unku am na ñoo xam ne fi mu ne seen tur la ñaar dañ leen di tere ñuy bañ ñu rey ay unku xeet deme noonu la euh, masalan bu fekkoon ne da nga gént am na ñoo xam ne rab bu leen du dugg yu mel noonu la leen du dugge gént lu mel ne si ndax dugg la dugg saw yaram loolu jàppal ne am na tawat ju la dugg joo xam ne ju dëgër bopp lay doon mën naa nekk sax rab wala dugg am na ñoo xam ne rab noonu lañ leen duggee maanaam nga gént lu mel ne si ndax dugg saw yaram te génnaatut moom ñaari tawat ju dëgër bopp lay doon wala nga gént gis ko mu laxasu fenn ci saw yaram loolu ñaari dana tegtale feebar boo xam ne yu dëgër bopp lay doon yooyu muy si ndax muy mbëtt muy unk yooyu boo ci gént rek xamal ne lu dëgër bopp lay doon bu fekkoon na ko xam ne ba tey moom it day listixaar lu mel ne tukki bu gente gis ci ndax loolu ay wor la gàllankoor la na ci bàyyi xelam bu baax ba tey lu mel ne kër mag ñi nañ ba dañ ko jënd di ci def saxaar di ko xool ndax kër ga mas na am coow wala kër ga ay def defan fa wala kër ga am na ñu fa dëkk mën na ay rab ak ay jinne xeet yu demee noonu bu fekkee dañ ci def listixaar na nga gént ca barab ba gis fa lu mel ne ay sindax dëkk fa na nga xam ne foofu it ay ay raba nga fa muy loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci say mbir balañ caa dugg nga koy càmbar ak di ko saytu bu baax a baax. ba tey bokk na ci loo war a bàyyi xel bu fekkee da ngay jëfandikoo dara dem ba ci biir nga gis ca si ndax xamal na sa biir àll am na ko fa nekk di la a waaw di lekk dara ca biir nga gis fa si ndax xamal na sa biir alal ak di la wër am na ko ne ca biir di la yàqal di la gi nag mën na nekk ay def-def mën naa nekk ay pexe. mën naa nekk jël sa alal te doo ko yëg yu baree bare kon mbokk yi lii lañ leen indiloon ci gént si ndax muy rab yi nga xam ne moom it bokk na ci li jaxasoog doomu aadama ci dundam te mu koy dikke lu bari ci gént kon yi ma la ci jox ay takk-takk la yoo xam ne yu mat a jàpp la kon ngeen di de di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa